SMS santé Saloum sa santé ànd ci ak ki xam ne nag wax dëgg yàlla moom mooy ndeyu mbind gi euh, am xalaat bu rafet bi tey ba képp ku nekk ci biir Sénégal euh, war a mun a toog sa kër wala ci fa ngay liggéeyee mën a am euh, information yu am solo ci li nga xam ne moo di wàllu wërgu yaram kooku mooy docteur Diop bi nga xam ne moom lay bokkal di sama co-présentateur émission bi docteur ñu ngi lay nuyuwaat beneen yoon. Euh, plateau bi yëpp di nuyu auditeurs yi télévision di Saloum TVS tey nag wax dëgg yàlla comme ni ko waxee. Euh, émission bi waa Kaolack ñoo ko moom. Mhm. adduna bi yëpp ñoo ko moom waa Sénégal yëpp ñoo ko moom. donc tey dañ am benn gan gu mag. Mhm. boo xam ne vraiment dañ koy remercier au passage. Mhm. parce que daf ñu ko yombalal. mu nekk euh, benn pharmacien d' abord avant buy doon un biologiste. Euh, ba pare nekk chef de service fii ci hôpital régional bu Kaolack nekk ku disponible ñu waxtaane tey. maanaam rôle biologiste. Mhm. ban jàngat ñoom la ñuy am. Mhm. ak ban liggéey ak ban taxawaay la am ci wàllu euh, xeex bi muy xeex mbas bi. Mhm. Euh, suñu defee parcours ci liggéeyam. mu xamal ñu tey yaakaar naa auditeurs yi. dinañ dégg tey ci émission bi. loo xam ne dina leen jëriñ incha allah. jërëjëf euh, donc ni ko docteur Diop waxee rek. tey nag suñu invité daanaka ñoom temps yi ñoom ñoo aag parce que. waxuma sax waxuma sax ci temps Covid bi mais gis nañ ne léegi hôpital kenn mënul faju te def loowuñu la analyse et te ñoo ngi ko wax di waxee di wàllu woowu yëpp ci ñoom la ci ñoom la wéeru muy les docteurs les médecins biologistes tey ñu dala fi docteur Dia docteur ñu ngi lay dalal ci suñu plateau SMS euh, santé. Euh, alhamdulilah ñu ngi leen di sant di leen gërëm. Mm-hmm. di tàmbalee suñuy kàddu ay kàddu nuyoo. Mm-hmm. di nuyu. nest pas di nuyu euh, kilifa kër gi mm-hmm. di nuyu personnel bi yëpp mm-hmm. di nuyu auditeur ak auditrice yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk di seetaan mm-hmm. te di déglu émission bi di rafetlu tamit invitation bi parce que dafa doon li nga xamante lu am solo la lu tax mu am solo parce que nit ku nekk li ngay liggéey da war wane résultat yi ngay am mhm. nga sensibiliser à travers cela mhm. et je pense que sos émission bi mooy docteur Ibrahima Diop bi di sama euh, collègue mhm. moom loolu mooy idéologie c'est-à-dire chef de service au niveau de la région ak en dehors de la région même si possible mu jéem leen woo ñu ñëw vraiment pour fësal li nga xamante ne moom la ñuy liggéey ci seen i ci seen i gox. Mhm. maanaam ci seen i service mhm. donc euh, vraiment kàddu yooyu laa amoon pour tàmbalee. Mhm. mais également di nuyu euh, de passage euh, monsieur Mbaye Ngom. li nga xamante ne moom sama promotionnaire la. très bien yàggul lu ma xam ne moo ne fi. xam naa nuyoo bi aussi dina ko xaw a bett. <laughs> di profito également di nuyuwaale sunu directrice mhm. du hôpital régional de Kaolack mhm. ainsi que l'ensemble du personnel de l'hôpital sous ma directrice c'est-à-dire c'est représente elle représente euh, l'hôpital mhm. donc euh, ma ngi nous, nuyoo l'hôpital pour que mu nuyul personnel bien les médecins les infirmiers tout le monde nous sommes également sama service du laboratoire Je suis tout le personnel du laboratoire c'est seen opportunité comme ni ma c'est seen occasion vraiment pour que ñu mën a mhm. euh, wax lan mooy métier mhm. laboratoire lan mooy métier biologiste mhm. parce que dafa doon li nga xamante ni dafa xawoon a euh, tumuranke mais euh, historiquement muy dem ba finalement am une direction direction des laboratoires donc loolu gën a jëmmal métier bi direction bi aussi di def liggéey bu mucc ayib di dem au niveau n'est-ce pas des régions di dem ci laboratoire di dimbalé mhm. donté doyul mais ñu ngi def seen i kattan mhm. seen kéemtalaay kattan pour mhm. vraiment assurer cette mission là donc yoon la tey buñ ñu wowe ñun ñoko waron demander pour ñëw wax né ñun li moy suñu liggéey fessel ko mais buñ ñu wowe duñ def lu mooy vraiment accepter ko te euh, fas Inshallah, si kanam jéem lér ak yéen question yi nga xam ne ngi koy laaj très bien docteur Diack donc kooku mooy docteur Diack mo nek suñu gan euh, donc euh, di wax rek ne euh, li initiative bi docteur Job am pour la santé c'est pour képp ku yëngu ci walu santé tout le corps médical ou paramédical donc euh, yéen yéen mom pratiquement émission bi je crois que incha bu di ngeen gis ne lépp lo xamné wax dëgg yalla kumpa la woon ci diggante ñun ñi nga xamné ñoy aji aju ñuy faju ak ñi nga xamné ñoy ñooy faj crois que lu bari dina leer ci li nga xam mo moo su suñu ci profito rek comme ni ko docteur Dia waxé di remercier madame la directrice de l'hôpital de Kaolack muy madame Khadija Sarr Kébé ñu koy remercier surtout ci eh, collaboration bi mu namb suñu diggante ak euh, mom entre la euh, le groupe Univers Média Saloum et le centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass waaye aussi di nuyu Aïssatou seen seen chargé de comme bi nga xam ne da moom moo nekk entre pratiquement les deux di yombal li nga xam ne donc moo di liggéey di leen remercier lool ci yombal bi nga xam ne euh, moom lañ yombalee pratiquement parce que nit ki kuy oo kuy oo euh, tati euh, waa këram ku nekk war nga ko tàggu te yaakaar na ne yombale nañ ko kon damay dellu rek ci docteur Diop bàyyi ko ak Euh, ñu tekki waxtaan mu set euh, naka lan lay njëkk a laaj ki nga xam ne moo di moo di suñu gan gi balaa ñuy dellu régie. waaw damay euh, koy sargal d'abord dans un premier temps. Mhm. xam naa ne borom borom xam-xam la. Mhm. te ci biir présentation bi dama fàtte woon ne sax moom chef de service la aussi banque de sang. Mhm. ah ñu ngi waaw donc am na fa rôle bu am importance bu fay jouer. banque de sang bi waaw donc man docteur la ma ko bëgg laaj parce que nit ñi ñu waxee docteur docteur docteur te wax nañ ci émission bi passé dañ naan blouse blanche ku seul blouse blanche ak docteur docteur docteur ñu ngi wax docteur mais xam naa ko fekk biir hôpital bi day yaakaar day fekk am coin pourtant dafay jouer rôle bu parce que moom mooy Il mbóot yi mhm. mbóoti mbóoti feebar yi yi pour laaj ko lan biologiste nit ñi télé ku jàngul deful dara toog si saalam di dégg mhm. biologie biologie mhm. moo tax mu bëggoon moom mu farañ fàccal ñu ko mhm. ñu xam lan mooy biologie ba pare ñu soog a dugg si waxtaan docteur donc euh, loolu question bu am solo la li ma waxoon sànq rek nit ñi moom foog nga explique leen pour ñu xam euh, métier biologie médicale d'abord moom laa njëkk a tàmbale pour ñëw tontu question biologie parce que chronologie la euh, li ñuy wax biologie médicale maanaam benn branche la mhm. ci médecine mhm. bi nga xamante ni moom dafay euh, yittewoo mhm. li ñuy wax ay mbiru analyse analyse yooyu nag mun nañ ko def ci lu ñuy wax ci produit pathologique yu bëri mun nañ ko def ci deret mun nañ ko def ci tuur ndox mun nañ ko def ci ginnaaw kër mën nañ ko def ci ay tiflit donc fuñ ko mën a def bëri na donc biologie médicale lu ko tax a jóg surtout mooy pour évaluer état de santé des personnes mooy lan xam nga sa oto boo ko amee il est préférable nga koy réviser chaque année ou bien chaque six mois selon ngay dem di koy réviser di def bilan bi donc laboratoire d'analyse médicale égale son rôle lool da cee bok moy def évaluation état de santé parce que doomu adama ci biir yaramam dafa am ay composants composants yooyu noonu yëpp bu nekk ci ay limites yu mu war a yem limites yooyu warul dépasser warul manqué lan mooy wane ne lii dépassé na ma la lii manqué na munoo xool nit ki rek ne ko kii dafa exemple dafa amee diabète déedéet. Mm-hmm. déedéet munoo koo xool rek nga ne kii dafa amee drépanocytose déedéet. Mm-hmm. donc évaluation de l'état de santé boobu noonu loolu dafa bokk suñuy mission. Mm-hmm. beneen mission mooy lan mooy mission de diagnostic des pathologies. mooy lan boo déggee diagnostic mooy nga examiner ba gis ne lii la. xam nga nit ki su fekkee dafa am lu muy jàmbat ci yaramam. dafay dem xool docteur bi nga xam ne day faj mhm. mooy ki nga xam ne moo lay bindal ordonnance mhm. mais docteur boobu bu gisee nit ki par rapport ak nit ki lu muy souffrir mhm. dina ko ne man de yaakaar naa ne mu wax signe clinique yaakaar naa ne lii la mais awma ci yaqin awma ci certitude donc de ce moo koy bindal bi analyse mu ne ko demal ci laboratoire muy ñëm ñu intervenir foofu pour diagnostiquer ne ah lii de feebar bu ko kii foogoon la mhm. wala lii de du feebar bi nañu waraat beneen mhm. beneen bi aussi suñuy émission mais docteur balaa ngay continuer foofu mhm. dafa amul benn question bu ma la bëggoon laaj kon yéen da ngeen am obligation de résultat ou bien obligation de moyens parce que le pharmacien dafa am obligation de résultat maanaam su jafaree benn garab dafa naan garab bii forcément lii lay faj. Mhm. dafay prouver ne lii lay faj. Mhm. mais médecin bi su tiimee malade bi amul droit moom ne malade bi mën naa ko faj. Mhm. amagu ci dem amul amul obligation. de de de de de de obligation de moyen là. obligation et obligation de résultat pharmacien mais biologiste moi je pense que bëgg naa xam vous avez les deux obligation de moyen obligation de résultat ou bien obligation de moyen ngeen am pour am voilà mm-hmm. donc euh, d'abord, abord obligation de moyens obligation de résultat mooy là, mooy dañ lay jox ay yi mm-hmm. ba pare fixer le objectif mm-hmm. fixer le résultat bi ngay nga war atteindre en matière de santé nous, on donne les moyens on exécute xam nga nekk ci laboratoire on man war naa diagnostiquer man pali hmm. alors que amoo microscope hmm. mais bu ñu la joxee microscope yow par rapport ak sa background par rapport ak li nga jàng par rapport ak sa formation war nga mën a génne un résultat fiable hmm. vous avez les deux mooy résultat donc nag <laughs> moins mm-hmm. résultat mm-hmm. pour nga am ko nga mm-hmm. mais aussi moyen boo amé fo nga formation qualifiée pour que nga puisse vraiment exercer ce métier donc il faut vraiment coupler les deux pour avoir un résultat de qualité nañ ñëw ci résultat aussi parce que bari ay ay composants yi un résultat fiable parce que nous ñu jël ko rek analyser ko parce que analyse bi mën nañ dernière étape waa ñu ko analyser malade bi di nga ko préparer. ne ko booy ñëw condition yi ngay respecté boo ko respecté ba pare boo ñëw ñun dinañ def prélèvement est-ce que prélèvement bi aussi ni ñu ko defee baax na wala baaxul bu ñu ko prélevé dinañ ko conserver est-ce que conservation baax na wala baaxul donc yooyu yëpp ay étape la. yi nga xamante ni dafay bu bu ci benn amee faay rek. da ngay am problème pour que nga am résultat fiable. donc donc monsieur Mboup kii mu ngi ñëw si. waaw les bonnes pratiques du laboratoire. c'est ça. Voilà. les bonnes di laboratoire. waaw ah, dafa am ça ce qu'on appelle DPL. voilà le moom xam na ci dara. <laughs> waaw xam di préparé question yu. d'ailleurs <laughs> justement beneen bi rek foofu la safee. parce que foofu laa bëgg ñëw sax. Euh, parce que dama dama dama dama bëgg ñu méngale. ñu méngale wax ji ak euh, ak parce euh, que dem demoon nga seeti sawaay. ci bërëb bi nga xam ne moom lay moom lay liggéeyee. muy hôpital euh, régional bu bu Kaolack dama bëggoon rek ñu euh, dellu ci jiili la la bu ñu mënee jox le premier extrait bi nga xam ne euh, moom lañ demoon pour gis li nga xam ne donc mooy li ñu ooyee laboratoire immunohématologie donc ñu gën a seet dugg seet li nga xam ne moom la ñoom docteur Dia di liggéey foofu ci bërëb bi la régie s'il vous lii benn étude bu ñu defoon la. sur euh, le palu ñu xool euh, naka ban technique mooy gën a vraiment euh, euh, yomb wala mooy gën a mhm. pour que nous puissions euh, identifier rapidement paludisme. Mhm. Nous avons présenté euh, feuillet ca Yaoundé. Mhm. yàlla def ñu amoon fa ce qu'on appelle le deuxième prix. Et si lañ ñëw euh, vraiment. euh, archi archi archivé au niveau de truc. Hein, c'est l'équipe du laboratoire qui ñoo fait cette étude là. Hein, donc Mathieu profiteau profito vraiment remercier donc. Euh, ki euh, ben technicien la. Mhm. Euh, donc fum mu toll nii dafa nek di def ce qu'on appelle les les les mhm. hémostase ay analyse yi nga xamanteni dañ koy faral di def surtout mhm. bala ñu opérer nit ki. ah wa bala ñu opérer nit ki parce que bo déggee hémostase dafa am ce qu'on appelle les facteurs de la coagulation. parce que nit ki bala ñu ko opérer dañuy xool deretam est-ce que dina gaaw way donc bu fekkee ne deret dina gaaw way woy alhamdulilah su fekkee deret du gaaw a woy dina am yeneen facteurs yi nga xam dañ koy préparer au cours de l'opération mhm. ñu mun ko koo ñu mun ko koo defal mhm. donc euh, moom nga gis tube yooyu noonu la yor appareil bi moo nekk noonu coagulomètre mhm. donc elle est en train de de manipuler ça euh, ouais, selon masque parce que si elle est seule, elle, est, hein. seule, <laughs> c'est bon à savoir pour Ça, c'est très important. Mm-hmm. Elle est seule, mais aussi, elle ne manipule pas des, des produits vraiment toxiques ou bien comme des produits Covid, etc. <laughs> Mais fille, ça demande beaucoup d'attention parce que, euh, euh, résultat, il va de la vie de quelqu'un. Effectivement, il va de la vie de quelqu'un parce que mon temps de femme a des conditions, il va leur étape parce que tu prélèvement avec mon su fekkee tey ñëw na te gis nañ ne prélèvement bi baaxut duñ ko manipuler. Mhm. dañuy wax ñu defaat ko. Mhm. parce que boo manipuler un prélèvement li may faral di wax ñun on reçoit le malade en miniature. Mhm. mooy duñu ñu jàkkaarloog nit ki nii de malade médecin bi mooy jàkkaarloog moom mais ñun produit nit ki benn échantillon lañ ciy kii donc amuñ droit def ci erreur. su amee juum ci tur yeeg yooyu yëpp dañ koy delloo. ce qu'on appelle les non conformités. Ah. voilà yooyu nag day faral di am mais nag moo tax il faut être vigilant dans ce que tu fais. Mhm. loolu vraiment si euh, loolu la ñuy gën euh, attirer attention euh, donc personnel bi. lii docteur <laughs> autoclave la. bu ñu autoclave. bi centrifugeuse autoclave moom autoclave permettre ñu a préparer des milliers de cultures. Mhm. mais aussi détruire parce que c'est def. bactériologie les bactéries là. Mhm. moom la ñuy autoclaver après parce que bactéries bu fekkee ne isolé nga ko ba da nga jël après nga détruire ko door ko dem incinérer. Mm. dafa am benn procédure de gestion des déchets. parce que tamit il ne suffit pas de produire nga jël li nga produire sànni ko ci jaww ji. Mm-hmm. su ko defee yaa ngi augmenter vraiment problème infection yi. Mm. waaw autoclave bee nekk nii donc euh, nu muy fonctionner da ngay jël si sa couvert bi moo nekk noonu. Mm-hmm. da ngay jël produit yi nga xamante ni moom ngay incinérer moom ngay autoclave autant pour moi roclage boo ko dégg mooy stérilisé. Ah, ah, stérilisé mhm. mooy euh, microbe yëpp dañuy dëñ. Mhm. microbe yi quoi waaw microbe yëpp lay dañuy dëñ ba mu des foofu déchets yi rek. Mhm. déchets yi nag ngay jël door a dem incinéré. waroo génne produit rek te jaarul fii nii surtout bactériologie. donc si lañ koy def tëj ko ak ndox de ce fait euh, ce qu'on appelle euh, humidité bi mooy dem ba dugg ci bactérie bi rey ko. pendant 18 minutes à 121 degrés. donc loolu mooy procédure mhm. donc euh, humidité boobu mooy dem moom la ñuy tëj mais bii moom c'est euh, centrifugeuse comme ni ma ko waxee parce que boo jëlee deretu nit ki deret bi sans total mais des fois ñun suñu majeure partie ñu ngi koy manipuler ci sérum bi mhm. mooy euh, maanaam surnageant bi mhm. parce que deret boobu lu ne ci kaw parce que xam nga deret gi tey su fekkee jël nga ko nga bëgg a xool suukar si mënoo ko xool ci deret bi ci ci sërëm bi nga koy xool. maanaam maanaam bu doon soow ci néew néew bi ngeen. voilà voilà <laughs> léegi nag boo ko tegoon nii sa lu yàgg. Mhm. dina dem ba. lu diis li wàcc. Mhm. globules rouges yi wàcc. Mhm. mu des li nga xam ne moom mooy surnageant bi sérum bi. mais comme des fois da nga am yu bëri te mënoo xaar lii dafay accélérer. processus bi waaw maanaam day centrifuge voilà da ngay tourner tourner. de ce fait pendant cinq minutes mhm. nga am li nga bëgg mhm. nga jël surnageant bi mhm. nga commencé def say manipulation waaw loolu fii frigo la bu am suñu réactif réactif yi boo ñuy permettre ñu mën di liggéey donc ah, donc réactif biochimie la boo bëggee def gli glycémie da ngay jël benn réactif après nga dem euh, euh, suivre sa procédure ah, am na procédure yi ñu lay tegal nga jël temps de sérum nga jël temps de réactif après nga dosé ko de ko dosé mu jox la une valeur effectivement waaw lii yëpp di frigo ci machine la euh, buy euh, def ce qu'on appelle ionogramme ionogramme mooy ay analyse biochimique la mhm. yi nga des fois day permettre vraiment di xool état de gravité de la d'une maladie surtout les c'est les instants rénales que ñu nekk mhm. ci au niveau n'est-ce pas de la réanimation hein, day permettre vraiment ñu mën ajuster seen traitement également mhm ñu mën a ajuster seen traitement euh, sànq wax naa ko si mission yi mais peut-être eggutoon mooy dafa bokk aussi suivi mhm. mission du laboratoire dafa bokk suivi du traitement mhm. médecin bi su fekkente ne diagnostic na gis na malade bi ni am na feebar bi mu jox ko médicament mhm. wér na ni cliniquement mais war na ñëwaat ñu def contrôle loolu suivre la quoi ça permet de suivre le malade et même des fois d'orienter un traitement c'est-à-dire nga ne ko ah traitement bii de mën nga ko changer utiliser bi mais loolu waxtaan la entre mhm. deux spécialistes mhm. donc voilà loolu la nekk di def ni analyse bi dafa parce que urgence la mhm. d'habitude malade urgence yi ñoo koy quoi on le demande en urgence parce que des fois ça aide dans la décision thérapeutique maanaam day dimbale nit ki pour ko mën a jël décision parce que am na paramètre bi nga xam ne bu fekkee dafa élevé par exemple bu fekkee potassium bi dafa élevé kooku noonu nit ki mën na mourir par arrêt cardiaque ce qu'on appelle une bradycardie mhm. loolu nit ki bu ko xawee déjà mën na intervenir avant que muy c'est très important est mhm. kii euh, machine bi vraiment mën naa jàpp ne mën naa ne laboratoire bi parce que machine bi ce qu'on appelle automate la automate A25 mhm. moom la ñuy defee biochimie quoi donc biochimie parce que euh, li ñuy wax biologie médicale moom ay branche yu bëri ci biir pour euh, aussi leeral ñun labo bi labo polyvalent la day def biochimie day def hémato day def euh, bactériologie et cetera léegi machine bi mun na def ay malades yu bari à la fois nga régler programme li ngay programmer après nga tëj ko muy def ay analyse am loolu tax ñu naan automate hmm. daf ñuy noppal te aussi rythme bi bu muy jël bari na bari na lool mais nag suñ ci mënoon am beneen aussi moo doon gën a waaw parce que laboratoire bi dafa nekk di màgg parce que boo xoolee vraiment euh, lu ñu am ci ay malade euh, su fekkee ne benn machine bi rek moo fa ne mhm. dina xaw a doy waar te bu yàggee mun na ko sonal mhm. mais nag am na ay yeneen machines yi nga xam ne mun nañ liggéey comme li muy liggéey li mais yooyu du automate mhm. ay machines yu ndaw la donc euh, li ñu doon wax sànq rek ça diminuer le nombre waaw technologie bi aussi même chose la si nga waroon jël ay deux trois euh, personnes kenn dafay nekk mais nak amna yeneen yu koy seconde yooyu noonu foog nit ki toog fa pour manipuler pour génne résultat voilà très bien docteur ma rappelé rek euh, ñi nga xam ne ñuy seetaan que mën nañu suivre en direct ci YouTube bi euh, donc ñu ngi jàll ci YouTube bi te ngeen tapé TVS Sénégal mën ngeen seetaan aussi ci Facebook bi pour tapé TVS Saloum donc même bu émission bi jeexee sax mën ngeen am chance di ko mun ko rediffusé saa bu leen neexee je crois que ci ci Facebook ak YouTube mu mel ni donc euh, je crois que docteur. patch euh, patch boobu parce que bu ñu fi fait fekk ko fa. Uh-huh. je pense que image yi ñu filmé ni uh-huh. c'est pour rassurer la population. Uh-huh. parce que euh, su 4 avril jotee. dañuy génne suñu armée yi. génne suñu militaires yi. génne suñu soldats yi. pour wan population bi ne ñi yéen a ngi nekk en sécurité. en sécurité donc suñu génnee tey dem hôpital rek fa docteur Dia. ñu won équipement am. ñu won ay matériel c'est pour rassurer la population. dalal xelu population bi mhm. won leen né docteur est là. Mhm. bon pour faire ce soxla. Mhm. faj une aaju. parce que analyse il fay il nit. ci da fay dimbali médecin. Dimay wax né le médecin il travaille sous couvert du biologiste. parce que ce biologiste il est le médecin. parce que tey on wax na ko on a ne ci prélèvement yi ñu def dañuy def prélever direct. dañuy prélever tuur ndox. Mhm. ñu tëral ginnaaw kër. Mhm. mais bu ci nekk am na doomi jàngoro bu mu fay recherche. effectivement donc euh, ma bëggoon a lancer foofu rek docteur laaj ko. Mhm. ne ko lu ñuy woo ot. ot maanaam dëkkuwaay. waaw parce que looy seet dafa am dëkkuwaay. maanaam mënoo seet feebar boo xam ne mbir mi euh, su duggee si biir yaram. si deret jëla jëm. am na feebar boo xam ne su duggee si biir yaram. sa estomac ba la jëm. Mhm. am na feebar boo xam ne su duggee euh, doomu jàngoro boo xam ne duggee si biir yaram. Mhm. si bët ba la jëm. bët mhm. ba rek nga mën a prélever. pour jot doomu jàngoro boobu noonu. donc moo taxoon ma bëggoon ko poser foofu question maanaam si seen analyse yi ñuy def ak seen kii léeg-léeg di nga fa dem ba ay 11h ñu ne la non pour prélèvement diabétique moom. jëlatuñ heure bi jeex na heure bi jeex na. ndax prélèvement docteur dafay am heure. ou bien dafay am waxtu pourquoi nit ñi li renvoyé nit ñi suba teel bi suñ ñëwul ñu ne non doo la mën a prélever en plus. Euh, yeneen prélèvement cinq heures du matin dañu ñëw voilà loolu yëpp tamit vraiment mun naa. voilà <laughs> donc nga leeral <laughs> population bi. si loolu pour que ñu xam parce que léeg-léeg malade ñëw fa ñu ne ko xaaral ba nga war mu commencé xultu. Mhm. man de si suba teel laa fi ñëw ci fekk moom si intérêt am la moom mais du sa coobare. Mhm. donc ñu bëggoon ñu. ñu leeral foofu. am si tuuti voilà loolu laaj bu am solo la. je pense que loolu dañuy permettre ñu cause ci li ñu wax les conditions de prélèvement. Mhm les critères quoi parce que nit ki newul euh, da ngay ñew rek ñu prélever la d'ailleurs sax des fois am na prélèvement yi nga xam ne sur rendez-vous nga koy mhm. nga koy joxe mhm. mais euh, loolu du hasard loolu c'est scientifique mhm. parce que dafa am lu ñuy wax les valeurs de référence valeur de référence mooy normes yi waxoon naa sàng nit ku nekk dafa am ci biir yaramam ay composants yi nga xamante ni fii la war a toll Mhm. maanaam warul yokk warul yées mhm. mais loolu pour pourquoi ñuy ne nañuy ñëw entre huit heures ba onze heures c'est pour se conformer ce qu'on appelle aux conditions standards mhm. parce que bu ñuy joxe les val ces valeurs de référence études yu ñu def pour génnee valeur de référence yooyu noonu maanaam ci horaire boobu lañ ko lañ ko def maintenant pour que nga mën a am ay résultats yi nga xamante ni c'est fiable il mm-hmm. faut répéter les mêmes conditions que étude de ñu mm-hmm. pour gagner les valeurs mm-hmm. référence maanaam ku wax sucre, glycémie valeur normale c'est entre par exemple 0,70 g par litre à 1,10 g par litre bu muy def lolu dafa rassembler ay malades bari ou bien ay nit ñu ce qu'on appelle un pool beaucoup de, personnes nous dosent sen glycémie mhm. à pareille heure entre 8 mhm. h et 10 11 h maintenant nous avons ben valeur mhm. donc nak pour faire une glycémie temps de jeûne il faut au moins 12 heures bo xeyé entre 8 et 10 h dans les mêmes conditions yi nga que fa lañu génné norme yoyu defal dans ces mêmes conditions pour que nga am am des valeurs fiables des résultats fiables mm-hmm. mais nak c'est pas tous les examens lañuy jël entre 8h et h d'accord la preuve amna yi ce qu'on appelle des urgences mm-hmm. am ay urgences wax naa ko sànq mm-hmm. comme euh, analyse boobu ionogramme moom guddi gi sax dañ koy dañ koy demander hmm? euh, boo xoolee euh, créate pour la fonction rénale a mhm. aussi à n'importe quelle heure mun nañ demander mhm. mais paramètres qui muy influencés, surtout les paramètres certains paramètres bio biochimiques mhm. yooyu influencé. Euh, une condition bi sur surtout su qui est ki dañ koy toujours dañuy préférer mu à à c'est-à-dire mu va moins douze heures de temps mhm. huit heures à 12 heures de temps au moins mhm. lu tax loolu parce que nit ki su fekkee dafa lekk au moment de la digestion maanaam buy reesal dafay euh, libérer ce qu'on appelle des glucides des protéines mhm. et des lipides ay graisses C'est loolu muy libérer loolu dafay chargé wu ci sang bi ci deret bi deret bi moo véhiculer provisoirement de ce fait yow boo jëlee le kooku boko centrifuge moy comme tourne, leen wax ko nga am bi da ngay gis dafay a ni dafa am meew dafay te lactescence bobu manam meew bobu mu lay do def sa parce que da lay mm-hmm. donc problème technique la benen problème aussi moy su fekkente tu arrives à le faire mm-hmm. mën nga ko dilier nga def ko boko élevé mhm. paramètres yooyu parce que xam nga au moment de la digestion glucose manam sucre su su euh graisse yi dugg boy doser sucre, yi mun na yok suukar si bu ko defé nga ne kii suukaram da yéeg mhm. mu dem di stressé di tiit di def lu alors que condition de prélèvement la respecté wul donc c'est pas un hasard su wax nit ñi nañ ñëw de huit heures à onze heures parce que dafa am ay conditions yi nga xamante ni moom la ñu war respecter mhm. pour que ñu mën am un résultat fiable mhm. mais nag y a des urgences mhm. la preuve en est également y a des des paramètres comme par exemple boo jëlee cortisol euh, moom euh, benn paramètre bi nga xam ne bu ñu koy doser euh, mën nañ ko doser comme ci suba si mën nañ ko doser comme ci guddi si mais ci suba si dañu jàpp ne entre huit heures onze heures lay tuwam di gën a élevé buy dem ba ay vers vingt heures tuwa bi day wàññeeku

numération la culture lañ koy wax euh, numération boo ko déggee euh, nit ñi luñ ci gën a xam mooy population général luñ ci gën a anémie la ñu xam mooy manqué deret mhm. bi mooy xool ndax nit ki manqué na deret wala manqué wul deret te lii aussi nit ki mënuñ koo opérer te defaluñ ko lii mhm. parce que balaa nga opérer nit ki foog nga xool deretam fan la toll mhm. dafa may ay newul loolu rek la mën a euh, comment dirais-je wane mais am na yeneen affaire comme infection mhm. nit ki bu amee infection à travers libération bi mun nañ ko xam xam bu fekkente ne non foofu docteur ko nga taxaw fi nga ñamal ñu ko ci <laughs> lu ko xam foofu ah. waaw xam nga Euh... infection soo ko déggee ah. mooy kenn ko dugg si biir yaram ci yaram hmm. te bokku ca waaw ah. parce que damay faral di dégg ci yéen ñi yëngu ci santé ñu ne yaram bu tàngee rek am na gan gu fa dugg maanaam bu fièvre amee rek température bu jógee rek am na gan gu dugg waaw ba ba xeex ba xeex tàmbali ci ci ci ci biir yaram d'accord c'est euh, infection moom d'habitude microbe micro-organisme moo koy joxe microbe moom bëri na am nay bactéries am nay virus am nay parasite mhm. bu duggee ci biir yaram dafa am lu ñuy wax les gendarmes de l'organisme mooy défenseur de l'organisme lu mhm. ñuy wax les globules blancs mhm. ñoom lu dugg ci yaram bi rek ñoom dañuy jóg pour xeex ak moom. li ñuy wax lymphocyte quoi les lymphocytes. lymphocyte euh, ci sous population globule blanc la xam nga globule blanc benn benn armée la benn paquet mais am na cinq sous population yi nga xam ne bokk na ci globule blanc. Hmm. am na les lymphocytes les monocytes hmm. les neutrophiles hmm. basophiles et eosinophiles donc yooyu moo composé les les globules blancs <laughs> maintenant euh, yooyu noonu su fekkee microbe bi dugg na. da ngay gis dañuy ñëw armée bi dañuy yee dañuy yeewu. Mhm. jóg leen dem neutraliser kër yi. Mhm. kon si je comprends bien docteur su biir électro kii bi. numération ngeen bi mhm. suñu gisee augmentation ban ban kii la ñuy référé ban. ban si ban indice. ban indice waaw. c'est parce infection léegi. waaw moo tax ñu bëgg xam si rubrique yi yi ñuy numération. ban kii mooy mooy mooy kii rek ñu xool rek ne ah y a infection. loolu ci globules blancs yi la. Ah, surtout ci globules blancs yi la. Mm. Mm. maintenant aussi même globules blancs yi li may wax sànq am na ay sous-population par exemple su fekkee neutrophiles yi ñoo élevé kooku dañuy gën a xam ne infection bactérienne bactéries ñoo koy gën a joxe. Mm. su fekkee maanaam lymphocytes yi la da ngay ne lii virus yi. ñoo koy gën a donc selon ça di nga am benn orientation. boobu dañ koy ñëw parce que virus boobu nga tudd. Euh, mooy. transition mooy transition. mooy ndey mooy ndeyu mbir mi voilà si si si si le Covid là. Ah. nga xam ne virus coronavirus lañ koy wax. donc xam naa dañuy def euh, dañuy sànn euh, kii bactériologie. waaw mooy ku ñu dem si terme bi. Mm-hmm. suñu paree après ñu. ji ji li continué ñu élément extrait bi ñu xool ko voilà donc muy noonu. waaw dafa mel ni aussi yéen bariwu leen personnel de. moment bi ni moment de la dañ koy euh, permanence ah, parce que laboratoire dafa organiser telle sorte que toujours bo ñew dañ ko fekk kenn légui suba ci de 8h à 14h dañuy def travail du jour mhm. maintenant entre 14h et 15h kenn mo fay def ben technicien pour gérer ce qu'on appelle les urgences mom mhm. moy de permanence mhm. maintenant à partir de 17h am kuy choses pour financer moom mooy def garde donc le laboratoire fonctionne vingt quatre heures sur vingt quatre sept jours sur sept parce que mënul tëj parce que dañ koy soxla mm-hmm. service la lii microscope la mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. donc euh, kii bu paree da koy enregistré parce que dañu am benn salle bi nga xamante ne salle urgence la fa la ñuy defee urgence yëpp lii dafa nekk di def euh, groupe sanguin groupe sanguin moom ñu bëri xam nañ ko euh, mooy permettre nga xam euh, nit ki ban groupe sanguin la parce que dafay baax nit ki xam dans les problèmes de compatibilité maanaam bu fekkee soxla na deret man la mhm. muy maye deret hmm, dafa baax nit ki xam groupe sanguin léegi ça c'est exigé dans les nouveaux permis là effectivement permis de conduire loolu mhm. euh, mhm. aussi moom la nekk di def ni hmm. donc docteur si bu ma comprendre bu baax bon demoon nañ ci laboratoire biochimie immunobi mhm. ci ah, bactériologie bi. bactériologie bi bon bactériologie mais que problème de temps mhm. le mhm. temps euh, continue ah, bactériologie bactériologie. Euh, euh, ce qu'on appelle automate la pour hémoculture. Hein, bactériologie c'est-à-dire ay maladies yi nga infection dañuy prélever seen deret après ñu def ko ci automate bi bu fekkee ci biir deret bi dafa am ay bactéries da ngay gis da koy signaler. Mm-hmm. bu la ko signaler après nga jël ko nga dem xooli ban type de euh, microbe la. Mm-hmm. léegi boo gisee microbe ba pare nga def lu ñuy wax l'antibiogramme. Mm-hmm. maanaam nga jël ay disques d'antibiotique nga xool est-ce que germe bii nii microbe bii nii antibiotique bii moo koy rey mbala bee moo koy rey. boo ci paree nag nga doo ko jox médecin bi de ce fait médecin bi moom dama leen faral di œuf sur le plat la ñuy am. waaw bactériologie moom. <laughs> d'habitude œuf sur le plat ngay am. <laughs> maanaam ñun bu ñu demee ba isoler microbe c'est-à-dire ba gis ne lii la dañ koy duñ ko bàyyee noonu de dañ dañ wax ne nii la. Mhm. dañ gis nga lii mooy ce qu'on appelle les milliers de culture si mhm. hmm? la ñuy euh, saxal euh, microbe yi. Mhm. parce que dañ koy defaraal suñu bopp. microbe bi lépp lu ñuy soxla. mu ngi ci millier bii nii. Mhm. léegi buñ ko saxalee foofu ba pare comme par exemple bu fekkee ne ay tour ndox la fa lañ koy def bu fekkee maanaam euh, poussé na maanaam am na dara da ngay gis mu poussé wane ce qu'on appelle des colonies yooyu la ñuy jël nag pour identifier ko. Mhm. identification bi euh, dafa am ay yu ñu koy defee mais mhm. loolu je pense que population bi peut ko buñ ko identifier ba am ko. ñu jël ay disque d' antibiotique teg ko ci mhm. buñ ko ci tegee ñu xool est-ce que microbe bi antibiotique bi mu mun na ko rey la ban moo ko ci rey bu paree nag ñu rendre résultat bi jox ko médecin bi gis nga fii aussi étuve la étuve bii nii 37 degré température bi 37 degré la parce que xam nga doomu aadama température du corps 37 degré la mhm. donc de ce fait euh, boo lu génn ci moom dañ koy jéem a reproduire dans les mêmes condition comme ni ma leen waxee woon ci conditions yene micro bu nekk moom di 37 degré dañ koy jël def ko ci benn euh, milieu de culture yóbbu ko à 37 degré xaar ba ëllëg sa mhm. su fekkee am na dara rek da gis mu poussé su amul dara da ngay gis du poussé waaw fii euh, sama benn collègue docteur Assane Dramé que je salue de passage n'est-ce pas Donc aussi, il est pharmacien, biologiste ancien interne des hôpitaux. Donc, euh, nous sommes mhm. euh, au niveau du, service. Moi, je géré sax euh, volet bactériologie bi mhm. laboratoire microbiologie lañ koy wax mhm. hmm? donc quand on dit microbiologie ça regroupe tout bactériologie lañ Il y a des parasitologie parce que des fois y a yenn vers comme ay ascaris hein? Eh, xale yi dañ koy faral di di génne muy am ay biir yu métti tout ça. Mm-hmm. donc yooyu yëpp fii lañ koy diagnostiquer. pour mun a vraiment trouver euh, un traitement. Euh, monsieur Mboup tu as vu que euh, comme ni ma la ko waxee utilité biologiste. waaw hôpital voilà. partie bi mu nekk partie bactériologie bi dafa am parti bu am solo bu mu wax. Mm-hmm. mooy antibiogramme. Mm-hmm. maanaam loolu mooy wane ne population bi waruñ dem rek di def automédication keroog wax nañ ko fi. wax nañ ko fi ci wàllu parce que antibiotique comme ni ko waxee moom mu ngi day mu ngi dimbale médecin bi maanaam jël na jël na isolé na doomi jàngoro bi. jël mhm. na ay antibiotique antibiotique A B C D. Mhm. mu xool ñoom ñëpp essayé leen. Mhm. bi mu ñëwee le lendemain xool gis ne antibiotique B bi. mooy rey microbe bi. mais kooku day bindal médecin bi rek glissé ko enveloppe bi ne ko antibiotique B moo koy rey médecin bi day xool malade bi rek bindal ko antibiotique B. mu dem ci pharmacie ba jënd ko. daal faj bi la donc faj bi daanaka ñoom moom lay wax sur le plat sur le plat bu muy wax loolu la lay wax automédication ban problème la gën a am sax mooy hmm. déjà yow boo jëlee garab bu la dul faj yaa ngi perte sa xaalis dana hmm. ba loolu mënoon nga ko denc pour leneen hmm. beneen bi aussi fekkente ne garab bi mënu la faj mais dafay nelawal microbe bi loolu aussi mën mun nga ko jël sentir ne yaa ngi tane yaakaar ne rey na microbe bi mais microbe bi bu demee ba xamee garab ce qu'on appelle une résistance maanaam dafay résister résister de ce fait yow mën nga dem ba benn instant. amati dara ko mm-hmm. donc vous ah, dañoo toll ci monde bi nga xamante ce qu'on appelle des bactéries hautement résistantes. Mm-hmm. yi nga xamante antibiotiques yi ñu xamagum yëpp. Mm-hmm. benn ben ah. donc euh, bu ko nit ki euh, en quelque sorte condamné à mort bien que nous tous on est condamné condamné à mort il faut vous pour dire que rek donc euh, lu jaram moytu la surtout en matière d'antibio, il y yenn garab yu calmer métit yooyu vraiment amul ben problème nit mën pour calmer métit en matière d'antibiothérapie faut dafa laaj procédure merci xam naa comme ni nga ko waxee léegi am na fi ñu daanaka li ñu dese dafa bareetul te am na fu mu dugg foo xam ne dafa am solo mooy virus bi parce que tey euh, ku ne xam ne ne avec covid bi nit ñi ku xamuloon virus xam nga virus ku mosul dégg prélèvement dégg nga prélèvement euh, ak résultats yi ñëw chaque euh, maanaam duggoon tuuti ci li nga xam ne moo di moo di virus boobu muy muy Covid Covid 21 bi nga xam ne dafa jóge ci xeetu dafa nekk xeetu coronavirus parce que loolu tam lu dara kenn yéen euh, seen mbiru euh, prélèvement yooyu naka naka lay demee xeet boobu xeetu doomu jàngoro boobu ndax ngeen ko mën a waxee askan voilà merci euh, Covid 19 boo xoolee laboratoire moo tax ñu diagnostiqué ko. Mhm. parce que fu mu feeñee dañoo gisoon ay nit ñi nga xamante ni ñu ngi am même façon feebar bi. Mhm. mais xamuñ lan la. Mhm. mais buñ leen prélever donc laboratoire moom moo diagnostiqué donc pour wax rek rôle laboratoire hmm. ci euh, covid 19 hmm. ci toutes les tous les toutes les maladies donc mënuñ wax ne feebar bi lii la tant que jaarul laboratoire hmm. donc loolu benn mission la mais balaa ngaa def technique bi foog nga def prélèvement euh, prélèvement yi euh, c'est des prélèvements ñuy def en plus au niveau des narines ci ci bakkan yi nasopharynx hein. mun nañ également def au niveau de la bouche. Mm -hmm. Mais en général, c'est des prélèvements qu'on fait au niveau des narines. On mhm. ñu ko prélever aussi foofu mooy ot quoi. Pour mu expliquer les. expliqué léegi. waaw Qui doomu jàngoro bu nekk. mais kii dalal kii dalal mhm. kii dalal. voilà kii dalal jàngoro voilà parce que ci ci ci biir yaram am na ku ci ne kuy dalal. voilà mhm. voilà voilà sa njaati gi. voilà njaati gi voilà mu ngoog mu ngoog donc loolu ci benn site de prélèvement yi mais lolo, euh, prélèvement boobu surtout moom la def ce qu'on appelle euh, PCR moom PCR benn technique la buy permettre vraiment le diagnostic précis mhm. euh, du de la Covid 19. Mhm. mais am na yeneen prélèvement yu hein, au niveau sanguin. Mhm. D'ailleurs, ça euh, ministère mu ngi ci projet boobu décentralisation des tests. parce que les tests se faisaient ne se faisaient qu'à Dakar Dakar lañ ko doon def. Pasteur ak. Euh, mais justement est ce que est ce que da ngeen amul moyen yu test au niveau des. des des des centres hospitaliers yëpp mu leen waxew euh, moyens yi amul mën nañu wax loolu. d'accord loolu la ministère comprendre bay bëgg a décentraliser les tests parce que actuellement y a des équipements xam naa loolu ci plaidoyer yi lay bokk. Mhm. parce que lii xam naa leçon la ou bien. waaw ah, Covid dafa mel na seen bët daal. waaw mën na jël. Mhm. Euh, maanaam mën na doon benn mal nécessaire. Mhm, effectivement mën nañ ci tirer ay leçons. yi nga xamante ne ñu mën a équiper. les, laboratoires, mhm. n'est-ce pas, de certains équipements. Nous avons une compétence pour DEFCO, mais il faut que nous ayons moyen pour nous mën ko ñu mhm. mais c'est vraiment un ngi ciy def euh, mu ngi dans euh, en ce sens mhm. parce que y a un projet de décentralisation des tests et à na ay appareil experts, n'est-ce pas dans la région Hein, on a choisi trois biologistes, hein, dont euh, je, fais partie. Il y a également un biologiste de, de, et un autre biologiste de, de, Kaznak. Hmm. Donc, euh, on doit euh, incessamment, normalement, faire les tests. ce faire qu'on andil nañu les les réactifs. Hmm. pour ñu démarrer. mais appareil moom quoi réactif bi mooy kii. Ah, réactifs, aussi dugg Sénégal. Hmm. mais direction des labos d'accord, ko distribuer au niveau du la rek mais Matam ah, zone yi nga xamanteni mhm. laboratoire te am Covid. Mhm. donc dañ koy décentraliser. bu de ce fait dafa am solo parce que dafay dafay de wax raccourcir le délai. Mhm. de prise en charge c'est-à-dire de rendre résultat résultats imaginez fait qu'il def nga fi prélèvement nga à ko Touba parce que actuellement c'est à Touba qu'on envoie les prélèvements. Euh, boko envoyer pour vous.

seen parce que laboratoire il y a des faux positifs. Oui. Mm-hmm. ça peut arriver ou bien. waaw xam faux positif c'est en terme ce qu'on appelle de spécificité euh, du réactif spécifique la am lu spécifique ak sensibilité spécificité ak sensibilité ñaari a un terme, ma la ko définir di nga xam faux positif di am mm-hmm. sensibilité si vous réactif bi sensible sensibilité voulue c'est 100%. Mhm. Moi, euh, Covid bu ci d'accord, rek détecté. Mhm. la loi du tout vous direz. Mhm. Covid bu am vous est détecté ah. Madame, c'est du mais si ñu spécifique spécifique madame. vous am lenen Covid su fekkee réactif pas spécifique. ok na du nekkul Covid lu Covid. Mhm. mu def positif alors que. loolu du eh, loolu moo tax positif. waaw ah, léegi nag un réactif spécifique doit être spécifique à 100 pour cent ou bien 99 virgule 99 pour cent. cela veut dire que bu la nee c'est positif rek xamal ne lii Covid la mais des fois réactif mun na nekk problème de spécificité. maanaam c'est pas spécifique au Covid. luy luy niroog Covid rek mun na ko tromper mu ne c'est positif donc loolu c'est des faux positif. positif. d'accord moo tax yooyu d'habitude ci test rapide yi la gëna bëré lolu tax sa ñuy def attention. pour def ko ci test rapide yi. mais justement test yi envoyé 24 euh, heures lay def wala ñaata fan lay biir wala. bu njëkk ba sax la gënoon a euh, di yag tuuti mais légui dans les 24 heures c'est selon également c'est une charge de travail hein c'est selon ses charges de travail mais en au bout de 24 h heures quarante huit heures. mën nga jot question bu toujours dama par exemple euh, cinq patients ñu defal Euh, quelquefois du du jaxasoo jaawale bu Samba ak bu Demba. <laughs> <laughs> non loolu. loolu les pré-analytiques loolu la ñuy wax les mesures pré-analytiques. voilà avant ngay analyser parce que dafa am pré-analytique am analytique am mm-hmm. post-analytique. Mm-hmm. pré-analytique moom dafa dafa dafa am solo trop. parce lu li ñuy wax quatre-vingt-dix pour cent des erreurs laboratoires. Mm-hmm. foofu lay jógee foofu lay jógee. moo tax boo réglé problème boobu rek. do am lo laa wax fiabilité résultat dépendre la ci ci fofu motax mm-hmm. dafa am identification. Mm-hmm. d'ailleurs bo xolé ay tour duñ ko xam. numéro mm. truc ñun ay tube numéro numéro temps lañuy bu ba résultat bi di mm-hmm. ko attribuer bulletin bi. lever anonymat wa anonymat mais poser question ci confidentialité que analyse aussi war ngeen tëb rek jël analyse rek sans enveloppe ni rien jël analyse bu génn rek ngeen jox ko nit mu yóbbu ko ou bien yéen seen côté mooy maanaam di laboratoire au médecin traitant sans intermédiaire malade bi di xam lan moo nekk ci analyse avant muy àgg parce que souvent dañuy arrivé ñun pharmacien yi kenn ku ñëw teppi enveloppe am ñëw ne la docteur dama bëgg ko xool ma suma résultat analyse ma ne ku la ko bindaloon comme analyse mooy la médecin bi ndàngam mooy la ah doo dem ci moom mu defal la résultat yi mu ne non moom dafa xaw a yéex te dafa dañoo dañ kumpa. moom daal dañuy dañ kumpa. Hmm. par rapport à ban message ngay lancé si ñooñu. waaw loolu c'est à éviter. c'est parce que. Hmm. Euh, laboratoire dafa am mu bindoo. Hmm. résultat laboratoire confidentialité moo ko lal. surtout confidentialité bu amatul laboratoire rek loolu baaxul. donc prélèvement bu amee ba résultat bi génn dañ ko war a def ci enveloppe scellée c'est-à-dire enveloppe bi nga xamante ni dañ koy tëj. malade bi. nu mu jógee woon ba ñew ci yow def ci analyse jox ko résultat bi mu delloo ko médecin bi. Mm-hmm. lolu vraiment. c'est très important danger bi mooy lan. Mm-hmm. Euh, médecin bi dafa am lu ñu wax counseling c'est-à-dire mom dafa mëna préparer mm-hmm. psychologiquement malade boko boo jox ko un quelqu'un peut-être profane à la matière. mu gis positif. wax li positif la mëna ñaka a grave sax yow lolu bo gisagul médecin bi di nga. am un sérieux problème. da ngay stressé da ngay stressé psychologiquement stress boobu mën na la créer yeneen yeneen problème yi nga xamante ni amoo ko woon. dëgg la docteur amul dooguma la euh, sax mais dama lay nga euh, dafa amoon benn cas. Mhm. benn xale bu góor nekk ak yaayam. Mhm. yaay ji jël ci ay antirétroviraux. Mhm. mooy maladie garab yi faj. si sida bon mu ngi moom mu ngi nekk yaayam si biir kër gi mais chaque jour mu ngi gis yaay yi du naan rek moom xamul garab yenn façon garab la. mu un un jour dañ ko mën dugal ko rek mu jël garab bi rek daw ci pharmacie bi bu nekk bu ko gën a jege mu ne leen garab bi dama bëggoon laajte lu muy faj moo tax d'habitude mhm. ku indi garab rek ne lu muy faj rek war nga ko introser xool ba xam ndax moom moom garab bi ou bien non mhm. Mhm. mais yaay dañ ko tëb expliquer ko malheureusement fu mu tombé ñu dafa am euh, lii si sida lay faj mais xale bi foofu la foofu la daanu euh, dafa xam si saa si rapidement parce que xamutoon ne loolu moo xam nga ñàkk mm-hmm. koo laajte woon sax mm-hmm. moo gën. Mm-hmm. moo tax j'ai pensé automatiquement à ça moo tax ma lay wax si affaire analyse yooyu pour nit ñi aussi di parce que dañuy lancer message si télévision lañ nekk. c'est ça que ne message confidentialité moom mu wax c'est très important. ci laboratoire. c'est un message qu'on lance. analyse yi jàmbur du ko daj di ko liir mhm. di xam lu nekk di dañ kumpa mhm. surtout bàyyi ko mu dem si médecin bi mhm. médecin bi dina xam lu mu koy wax te il y a une obligation de de réserve voilà euh, li ma doon li ma doon dindi ci ndorte bi moo ñu moo ñu dal xam nga ne <laughs> docteur fi mu ne nii daanaka li ñu li ñu li ñu <laughs> ah, ah. sumb yëpp wax dëgg ah, yàlla euh, xaw ma nag da ñuy da ñuy dig da ngay dil ci xaw ma lu muy lu muy demee mais est-ce que mën na ko may mu wax un peu sur les problèmes lancés d'appel appel voilà voilà waaw s'il y a des problèmes au niveau du labo wala Kaolack waaye lan ngay xaar si ñoom pour ñu dimbale labo bi mhm. wala ban ban ban message war a jëwee ak taxawal bi yaakaar naa toujours moo ko problème ñu ànd foo nekk problème a ngi fa mhm. man damay faral di wax ne les acquis sont des acquis mhm. kooku duma ci revenir damay xool li nga xam ne moom mooy euh, problème yi ma koy mhm. soulever pour ñu mun koo di résoudre euh, ñun de euh, alhamdulilah labo bi fréquenté nañ ko lool parce que labo buy def cent patients au moins par jour kooku c'est un grand laboratoire tu as fait combien d'années à Euh, j'étais là depuis 2011 19 9 ans. 9 ans. Donc je fais partie vraiment des médecins seniors ou bien des pharmaciens seniors de, de l'hôpital. Euh, donc, euh, Fumutolni, euh, problème ressources humaines. Mhm. madame, personnel bi. Mhm. war que ko gën mhm. parce que le laboratoire fu Alhamdulillah, directrice directrice def na ci effort. ba recruté biologiste mooy docteur Hassan Dramé boobu mais box by assurance médicale nekk fa membre actif dañ leen ko sax vraiment ñu incha allah ñu wax si donc euh, euh, mais doyul au moins man sama objectif mooy au moins quatre biologistes nekk ci laboratoire bi. Mhm. de ce nga gis fi Kaolack kenn du soxlaati di di di di dem fenn. Mhm. leneen li mooy euh, donateur au niveau de Kaolack ñuy ñëw. di jege les services di leen wax lan ak lan ngeen bëgg xam naa ñu baax a ngi fi ñiy bëgg ñi bëgg a def mhm. ñu ne leen ah ñun de soxla nañ distillateur parce que actuellement nii am naa problème distillateur mhm. donc distillateur ñaata la jar ma joxe spécification yi ñu ñëw jënd ñu defal ñu distillateur soxla nañ vraiment euh, ressources humaines soxla nañ ay ay ay ay ay tabouret

salle bi nga xamante ni si la ñuy defee exposé mhm. soxla nañu aussi ñu équipé ko ah donc euh, soxla nañ ay yeneen machine machine yi nga xamante ni dinañu permettre ñu mën a def ce qu'on appelle électrophorèse de l'hémoglobine mhm. comme machine électrophorèse la ah dinañu permettre ñu mën a def loolu donc yooyu noonu yëpp bu ñu ko amee ak ressources humaine bi li ngeen gis vraiment Kaolack kenn du fii euh, kenn du ko jéggi di dem. di hmm. dem feneen. macha il faut vraiment que également euh, les autorités davantage ñu xalaat public bi. Hmm. parce que public bi ñun ñëpp moom lañ bokk. Hmm. public bi ñun ñëpp loolu lañ bokk. donc foog vraiment ñu ñu ñu koy ñu koy gëstu. te nag damay ne newul keneen mooy jóge feneen di ñëw di lay defaral. Kaolack yaakaar naa am na ay bonne volonté. ay euh, ñi nga xamante ne maye mbala boog dimbale. yitteel na leen ah mm-hmm. vraiment bu ñu déggee message bi mm-hmm. kon jotoo ko benn appui si koo mën a gërëm sa laboratoire bi ku ko defagum euh, mais euh, bon dëmb rek dama ne yéen seen jaar boobu euh, dafa ànd ak ñaan <laughs> dëmb rek oh. jot naa yenn équipement yi ah. <laughs> nga xamante ne venant te Saloum moom mel noonu venant di ministère de la santé ah, vraiment Euh, ñu koy distribuer au niveau des labos. moo ah, tax vraiment leen ci remercier laale ci côté boobu noonu. sant yàlla d'ailleurs installé guñ ko sax. Ah, y des équipements yi voilà voilà donc euh, dafa dañoon dégg daanaka ci càppaandaw émission bi euh, li wax xalangu dajul suuf. Uh-huh. waaw te li duuf ci nag yëpp xëj xejandoorul ci cin. kenn du wax xejul cin mais dafa xejandoorul. ki kikinde, manan bedou sop bi doy. Se yon denye mokajon, mounen gisa wak ki yon emisyon. Lan gen yon tagwa, skan yon hamnen yon, jakalon yon. Wala, hana di nou yon, nyon yon yon yon setan, mhm. di nou yon sou nou kolek bi, Dr. Ibrahim Mojok, mhm. di rafet lou vreman emisyon bi, mhm. di nou yon shenbouk an tank prezentateur de l'emisyon. et directeur de la télé. de la n'est-ce pas. Mhm. Euh, la c'est pas pour faire la publicité mais <laughs> yow ñu couvrir activité. <laughs> de euh, <laughs> de voilà donc y a un parce que nous sommes nos partenaires nous avons invité à C3S. et non C3S e C3S école 3 e s 3 <laughs> e s 3 <laughs> s 3 <laughs> s donc on va être la Inch'Allah. docteur Diop vraiment Je veux dire, la ko rek xam nga Mhm. Euh, je ne téléphone. voilà ah, j'ai pas voulu qu'on touche au téléphone. donc euh, vraiment nous les remercions, docteur, docteur sa mhm. disponibilité mhm. je pense que l'auditeur est dinañ Je remercie aussi personnel hôpital yëpp. santé donc heure vous plateau je pense que nous sommes là pour euh, waxtaan ak santé de la population je remercie aussi M. Mouk, parce que est docteur, il pouvait seulement mhm. journaliste mhm. non docteur <laughs> donc Lolo vraiment immunité pour ak mhm. euh, oyof mon la vraiment bu may def rek dama koy def ak fierté ak bëgg mm-hmm, mm-hmm. moo tax ma koy ñaanal yàlla yàlla guddal fanam yàlla dëgëral ko barkeel ko barkeel liggéeyam ñu toog ba télé bi vraiment mu doon télé bu extraordinaire moo xam ne adduna bi yëpp dañ koy seetaan barkeel yéen tamit merci donc euh, docteur Dia ñu ngi lay remercier ci euh, disponibilité bi ak euh, wax dëgg yàlla promptitude bi parce que wax dëgg yàlla invitation bi yàggut rapidement ñu répondre favorablement dem fa ci sa bërëbu liggéey nga guidé ñu ñu jël li nga xam ne moom la war a jotee li nga xam ne mooy askan wi di la gërëm yow tamit docteur Diop parce que tey li askan wi nga ko defal tey yaakaar naa ne képp ku yëngu ci wàllu santé que ça soit au niveau de des hôpitaux ou bien des districts au niveau des pharmacies même au niveau euh, pratiquement ñi nga xam ne ñu ngay jaay matériel médical ñoo ñooñu wax dëgg yàlla émission bi seen émission la donc euh, nous les lay remercier ci initiative bobu di ñaan képp koo xam ne rek bëgg na am visibilité ci wàll woowu mën nga jox ko ak ñi euh, nga donc euh, docteur docteur Diop moom ñu ko xamul moom moom mooy pharmacie imam Hassan Cissé bi nekk ci Mérignac ce n'est pas une publicité c'est gratuit parce que déjà tout son temps il le consacre pratiquement à la télévision Nous avons jox rendez-vous donc incha allah beneen 16h 17h seen beneen numéro SMS santé jërë ngeen jëf di gërëm waa régie ak ñi nga xam ne mooy cadre bi ñu àndaloon démb à l'hôpital euh, di euh, Mara ak euh, Mara ak les monteurs yi nga xam ne ñoom ñoo doon liggéey ci wàll wi jërë ngeen ba beneen yoon incha allah